mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah le duo Pape Maguette Ba Seydina Rasoul borom Dubaay le prince de Dubaay tey ñu ngi waat stade euh, arène nationale diggante Quench la ak Double Moteur Baba jaw jaw production Baba Diaw ñu ngi lay jëfal bu baax a baax et merci beaucoup ci ñi nga xam moom mooy les supporters les fans yar ak euh, tekk ak rek ñu bëre si jàmm ku ne ñibbiwaat Quench ñu ngi mi ngi waree fële ca Tëngéej nekk Lansar Double Moteur Rëbës la jógee. fii ci Ndakaaru Ndiaye combat bu neex Diaw production ñu ngi lay jaajëfal mais nag président ngir yàlla ak yonent bi ak ministre bi ministre de la tey ñëpp a jënd ay masque tey bunt bi dafa fees jël jaaykatu max masque yi masque cent franc masque fukki dërëm ñeenti masque cent franc ñaari masque fukki dërëm sax am na fi masque ñetti dërëm sax am na ñetti dërëm wala ñaar dërëm sax am na kon ça veut dire que les gestes barrières ñu koy respecté yàlla jàmm am ci Sénégal yàlla bu kenn làmb ji yàlla na corona bàyyi suñu réew mi bàyyi àdduna sëy na ay ca ambiance la léegi ci géewu Sénégal làmb ji neex bés bu rëy maa ngi lay nuyu. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. léegi imaam nga quoi. non après après mooy imaam. maa ngi sant yàlla bu baax doomu ndey Pape Maguette. seen xarit ngeen ëndi sa rak. waaw waaw sama rak sama doomu ndey. parce que su indee tey damay kontaan parce que premier combat ba muy doog a bëre maa ko indi kon tey bu demee ba mbooloo bi topp ko public bi topp ko ma indi ko tamit fierté lay nekk si man kontaan lay nekk si moom sama rak la suma xarit la. bii combat bu garaaw la. non bu garaaw la la moo tax kenn amul droit def erreur combat bu ngande la ci ñoom ñaar ñëpp boo gisee stade bi rek nga xam ni combat mag la. lan mooy kele lamb kele lamb instant nii fu mu nekk lii tijji lamb ji nii nii su ñoom ñaar mooy bëre parce que ñaar kenn xamewu leen xeex. ñoom ñaar ñëpp dañuy bëre moom. voilà loolu damay bañ ku ci jéem a naan da nga humilier sa boobu xeex nga juum mais bu ñu bëree teg ko gis lamb neex di ñaanal ku wen sa moom la ñu àndal suñu. Ah, waaw soo ma gisee nii nga xam ne pare parce que dama woon mais maa fi pour lamb ji. dañ may wax mais abar bu ma waxee ba ma déggoo daa pare dootuma gisati gars yi loolu mooy problème mais chaque jour ñu wax ma lamb promoteur woo ma wax ma combat mais abar. comme Tigre dafa garaaw. waaw léegi ah. tuddee ginaar wu lamsaar pour gars yi ñeme. Ah. non gars ñeme sax. mais su ma tuddee ginaar même su ma ñëwee sa lamb ji du ma def def yëfu ginaar. boo ñëwee Tigre ngay doon. waaw waaw mais da ngay <laughs> bàyyi ma nekk numéro 1 bi rek yàlla baax na quoi. yàlla nga am combat. def si làmb tamit yàgg nañ am nañ ay. Gaston mën na la dugal si journée. kooku mooy sama papa su ma ko jékkoon ni sama affaire neex. mooy sama papa heure ko jékkoon sama. affaire neex dina la woote di nga sama affaire neex suma papa la suma xarit la këram maa ko liggéey moo daal. champion nice man aw ma ci doute quoi pour suñu adversaire yooyu. amoo doute ci moom. non bokkul bokkul. bokkul moteur booy booy rëbës bi. non amul xam-xam bëri bu ma daan du doole du kattan du fu mu ah. ko xeebee ne sa sa sa rakk ji. non xeebu ma ko def naa comme adversaire de combat luñ daan def ci yenn combat dañ koy def mais buy roofee ba toppandikoo dañu xam ne ñim naa roofoon teg kii bokkuñu. mbaa moom du naagu. non moom na naagu na daagu na jëm lépp mais moom li mu yor na ko dëxañ ci poosam man li ma yor di àndanu ko Gaynde bokkul. am na lu ñu war a signé ñun ak yow incha allahu rabbi uh-huh. ñu ngi waaj a def benn partenariat. partenariat Seydina mooy dox mbir bi te dinañ ñëw bu soobee yàlla loo. non man maam ku ma xamul dégg na ma ngañ loo nim saat boutique affaire par naa nekk ay partenaire pour ñu jóob ci loolu par naa ubbi naa leen seen bor ku ngeen war a liggéey maag am naa confiance bu mat si yéen yéen laa doon wër ak si ngeen maa yéen laay wër maa ngi nii waa Sénégal. jeex na ñu ngi ñëw ñoo far maa ngi si jàmm maa ngi maa ngi si jàmm maa ngi ko moytu non lan laay moytu ci moom man xale laa moom xale la nañ dox daje. xale nga yow ni nga njoole nii xoolal xoolal man ak yow. mais xale xale mooy njool xale mooy njool. ñaara combat la bi xale mooy bëree xale mooy bëree moom xale la man xale laa. kan la moom mooy booy mërën na ñëw ñu daje. bis buñ la ci boolee te moomoo ko defal li la li la war rek jóge fi dem. ñaata nga am yow. man maa ngi ci deux ans deux ans. maa ngi sant bu baax. yow sedd bu metti bi ngay xëppoo ndox rek. sedd xale du sedd. seddul xale du sedd xale war na yëg seddaay. ah xale da yëg. non non lu tax xale laa mais dama koy yëg. non kon doo xale. da sedd bu commencé daa toog weer du ma sangu. pardon. sedd bu commencé weer du ma sangu. loola ci xiir loolu. nëbal rek ragal loolu nag. ah ndox bu tàng sax du ma ko sangu. bàyyi loolu. sedd bu ñëwee bàyyi naa sangu. garaawul danaa la parfum la sufaasal seen koñ. waaw. yow gaar. jàmm Diamaguène ngay waxal. maa la gën a xam. gars yi may ziar laa bëgg ñu <laughs> kon maa ngi nii Diamaguène original booy Diamaguène. maa ngi nii Sakki du ko waaw ñëpp a ngi fa. maa ngi leen ziar bu baax. ñoo ngi lay bëggee di la ah, ziar tey bés bi lan la laaj. dal rek tekk ak xam ne daa xam lu ñuy lu ñuy xaar. xam nga ne da am avenir si làmb. waaw waaw nga xam naa loolu. est xam nga ne sa tur weesu na sax yow fi nga toll. waaw mais xam nga rek ni mu demee la làmb moom moo dee noonu des fois nga am tur maanaam nit a ngi lekk ci làmb loo xam ne def nga fi lu mu deful quoi mais loolu wërsëg la ku nekk sa wërsëg da nga koy na waaw wërsëgu déwén kenn du ko lekk ren da ngay xaar rek. mais bi laaj na dal nag. waaw laaj na combat combat bu dangereux la yéen ñaar ñëpp ay ndaanaan. waaw waaw waaw laaj na dal ndaanaan la moom champion la waaw mais man tamit amaana kenn du gis première naan deux bi daa gaaw am na lu ma fi def daal te am na lu nekk ci man. si nuyu ma waa jàmm gën bu baax. waaw waa jàmm gën dinañ. xaar nga chauffeur ma sama. incha allah noonu lay demee. Boy Maroon ak Sa Thior Sa Thior moo ñu wan ginnaaw Boy Maroon mooy songu Boy Maroon a ngi dóor ay eh waay waay sama goro ay eh waay sama goro waay ay eh waay sama goro sama sama mbër waa fami goro Boy Maroon daan na Sa Thior hop hop hop hop sama goro moo daan Boy Maroon sama mbëru fami jabar sama mbëru jabar moo daan tey boy naa la décoré sama mbëru goro la mbër bi sama goro la waaw sama mbëru ñoom jabar ñoo daan ñoo bokk benn sant maroon e waay waay waay daan naa la waay e waay kii lañ jëloon interview sànq waay balamin golol naan bàyyi leen kii waay day bëre ji si kanam daa jommi daa jommi ay e waay waay mi ngi xool sama sama mbëru famille jabar ji waaw waaw tegal sa tànk bu la neexee nga tëdd ci ku daal soxla nga ko mbër kaamin nga maa ko wax bii passé Seydina moo daanoon waa Cambérène mbëru Cambérène mbëru koñam bii paa nag sama mbëru fami jabar ah encouragé ko voilà gis nga sama mbër sëy dafa per pay bokkut ak calle de calle moom mooy liiru liiru liiru liiru bébé bébé liiru mooy mbëru Seydina kii sama mbëru jabar la moo daan waaw waaw dafa la neex tey dama lay filme ba nga naaw tey dama lay siiwal ni xorom dama lay siiwal ni suukar dama lay siiwal ne ceebu jën dama lay siiwal ne Youssou Ndour dama lay siiwal ba nga dem ba Dubaay Seydina dem ñuy coow foofu sa tur kii mooy booy maroon waa Dubaay xàmmee leen ko njaga bu Dubaay yéen ñëpp waa France waa Italie waa Allemagne waa Amérique xàmmee leen ko. Maguette fay naa la. yaa ngi baax sant bu baax. mais tey dama gis nga ñëw yombal journaliste yi seen liggéey. waaw man ak ñoom ñoo fa. damaa la ñoom ñooy tax ñu dégg ma kon wala moo leen ko xañ. yaa may dégg mais en tout cas nañ comprendre rek ànd liggéey man amuma problème boobu. si sama kàddu journaliste yëpp remercier nañu. waa ci Serigne Touba ñoo fa waa ci Serigne Touba yombalal nga ñu ko. la day jeex mais nañ ko teg si yoon ak liggéey. mais bés bu rëy bi yombal euh, taxawal ko yombal. non yombul moom mais ay ndaw lan dañ gëm suñu bopp nangoo liggéey ndaw su ndaw su nangoo liggéey jaww jomb ko si àdduna te man ma gëm sama bopp nangoo liggéey gëm yàlla wóolu ko. jaajëf Baba Diaw merci jaajëf ñoo fa. waaw sant la mere. waaw ah, non boo juumee gars yi dañ mere dama juum. si laa bokk waaw dama juum dama juum moo tax. waroo juum. ah mais ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama ndijaay Habib yàlla na ko yàlla yërëm xaare ka àjjana da doon sonn suñuy combat billaahi fan yii la génn àdduna borom baax la woon. mais dara ba màgget li ñëw rappelel yi sa combat yow kat la sama combat maa soxaloon léegi yow lan nga def ba daanu dama juum daanu noo juumee dama jóg te waruma jóg yow da nga jàppoon da ñëw taxañ soq quoi yow loolu nga jàppoon waaw ah, man waaw ñu bëri nee nañ sa combat lu ci bëri da ngay naagu doo am concentration waaw ah, dëgg la waaw ah, loolu dëgg la bu ma déggoon ay conseillers lii ma dal noonu du ma dal mais sunu borom moo xam noonu di ko ñaanal bi yàlla na ko jik man bu ma amaatee combat yàlla na ma yàlla may. di nga déglu conseil. bu baax. bu baax a baax a baax daan naa déglu conseil. mais ko waaw combat bi dama si juum rek daa am ma bàyyi quoi. mais am nga demal rek defaruwaat rek. waaw loolu mooy tax nga defaruwaat comme ni nga ko waxee jàng nga lu bëri. waaw noonu lay demee bu ma ñëwaatee gars yi dañu xam na instant bi mooy loolu. incha allah jaajëf Paa Maguette. mbokk yi maa ngi fii nag ci biir Grand Yoff ay doomu Grand Yoff rek a fi ne. ñun deretu Grand Yoff mooy daw suñu yaram. waaw juddoo Grand Yoff màggee Grand Yoff di màggetee Grand Yoff fas yéene retraité Grand Yoff bu amoon cimetière sax biir Grand Yoff lañ ñuy suul. waaw loolu dafa leer de billaahi. ay wallaay loolu leer na nañu. Ah, est-ce que xam nga ne man bokk naa si ñi la njëkk a mere yow moom dama la koy wax rek chaque jour bu ma la gisee dama naan dama la mere. ah, ah. déet waay loo meree woon. Omidou lan moo tax nga war a bëree dem États-Unis toog foofu. waaw dafa am ci lu ma nekkoon bi mu jeexee ñëw naa. bàyyil gerte gi. non tàndal ma la ah, tàndal dafa am ma nekk. mais da nga woon contrat. mais hmm. ma fiy nekk moon ci contrat. ma fiy jógee nekk moo tax ñu aj la aj sa écurie. aju ñu ma dem maa ngi nii buñ ma ajoon du ma am droit wàcc fii nii. kenn aju la. dinañ ci waxtaan man ak yéen dinaa woo dinaa woo télé yëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan. kenn joxu la boo xam day firndeel dañ la aj. kenn aju ma. aju ñu grand yoon. waa yàlla bindul nit ku dul dee mais bind na nit ku dul torox am na ñoo xam ne boo buggee bëggee toroxal yaay torox. am na ñoo xam ne nag mun naa leen jéggal ndax bu ñuy wax dañuy wax ngir lu ñu yóbbul seen njaboot ñu lekk loolu da leen comprendre njaboot a leen jiital moo leen dugal ci wax ji. maanaam dañuy wax lu ñu comprendre wala. non du loolu de dañuy wax pour lu ñu am lu ñu yóbbul seen njaboot ñooñu mun naa leen comprendre ndax njaboot a leen jiital mais nag liñ ci war a waxtaan yëpp nañ ci woote ñu waxtaan ci incha allah. mais nga ne kenn ajul. ah maa ngi nii ci làmb ji bu la laajee kay doo a mën nga ñëw ba fii non mais buñ la laajee doo wàcc bi man dama am licence buñ ma laajee du ma mën a wàcc fii quoi. léegi am nga sa combat mi ngi valable ba tey wala combat bi am. non yooyu yëpp nañ ci waxtaan après. nañ hmm. am na looy nëbb de. non nëbb ma dara. da ngay dee États-Unis wala dema ko. non maa ngi Sénégal nag hmm, maa ngi Sénégal. mais balaa ngay dellu di nga bëri. loolu laa bëgg de bu mun a nekk. Ah. Hmm. maa ngi fii quoi. maa ngi sant. maa ngi nice. yow ci loo ne. maa ngi nii rek. gars yi di daw rek. nii nii rek. xam nga requin bi fi mu toll nii dafa dafa mer. de retour. dëgg dëgg neexul gën a neexul dañ soxla. parce ah. que alxuraan te fi mu nii dañu pare si tout le plan. si lépp ñu ngi dox suñu combat nag mais dafa sotteegul moo tax mënaguñoo wax dara. mais eh, yaakaar nga ne mën na sotti. mais ci kaw day sotti ci kaw ci kaw adversaire bu ñu nangoo kay. moo ko seen grand nag seen grand mi ngi nii naan. Paa Maguette. kii moom man waxuma la mere yow dama laa ba. waaw garaawul xam naa ñëpp a ma non ndogal suñu borom da nga ma dal. xanaa amoo jumtukaay bu dëgër. non lépp defaraat nañ ko. xanaa doo entraîné. lépp defaraat nañ ko. wax baaxul wax baaxul. li si kanam rawul bët. mais yi dafa bëri de. waa jeex na ndogal suñu borom dangu dong la woon du kenn yàllaa ma waroon may moom xañ. kese mais am na loo bàyyi woon tuuti. loo xam ne waaw man mënul ñàkk. loolu ma bàyyi woon na fexe nañ ba indiwaat ko. kese waa ah. mais ñu ngi waxaale ñuy wax sama combat baax. waaw ñu ngi wax daal bu sottee rek. mais eh, mën na sotti. waaw mën na sotti. man problème dama war a bëree dimanche dimanche bii. waaw ah. dama war a bëree Kaolack. dimanche bii mag waaw. grand combat dañoo nu bëre. waaw daal ma dimbali ko ci ay defet yu bëri. non moo ko a combat la wuyu. waaw ah, yow man mooy lamb. non man maa yor du lamb. Nandy Fall mi laa ah, soxla kii man si victoire laa jóge. Eh, eh, ma si victoire laa jóge moom si ay defet la jóge. non moom moom si ay defet la war a bëre quoi ah, du ay kaw la di jël foofu ay champion. non non fii la war a bëre kii mbërum eh, da. maa ngi yow ñoo a bëre fii non non maa ngi yow a bëre. Nandy la. Nandy laa soxla man. Nandy soxlawu la man laa jóge moom mu jëge si ñetti defet funéraire lañ jógee loolu du dara da ngay taxaw ñu laale Youssou Ndour nga naan ngeew ngeew ngeew mbokk yi maa ngi biir rëbës nag le champion de rëbës est en train de se préparer mi ngi waaj ak ay mbokk ak waa rëbës gi yëpp naka yi tey Pape Maguette ñu ngi lay ziar baax yaa ngi wér di rek waaw waaw waaw noonu la noonu la ay musulaay la rek yaa ngi tey kurus gi di wér waaw ay musulaay la bis bee ko laaj ngay tudd yàlla waaw waaw dañuy musulaay rek dañuy waaw di waaw di musulaay rek yaa ma nga na xam musulaay la rek incha allah waaye sant yàlla lépp lépp jàmm lépp jàmm alhamdulilah mobilisation waaw comme d'habitude xam nga Rebeuss moom ñëpp xam nañ leen ci mobilisation surtout rawatina Fass Colobane waa Gueule Tapée ñëpp jàpp ci plateau bi bàyyiwuñu kenn ñëpp ci jàpp ñëpp a génn ñëw seen doom Double Moteur ñi ngi ñaanal ko yàlla may ko ndam ndaxte xam nañ ki ñuy bëreel bu baax a baax jàng ko liir nañ ko daa daan ngeen ñu bëreel moom Pa Maguette ki ci laam la ma premier combat am ba jey combat yëpp seetaan naa ko xam naa ni muy bëree kii maa ko dugal ci laam dama jaar ni tey xam nañ ko mooy kan te préparé wuñu pour Quench kese déedéet dafa am bëri ne suñu kanam ñu war a bëri ñoom te dañuy ñaan yàlla ñu daan Quench si jël bu rëy dem xool ci kanam ci kaw. ay biir rëbës ba tey. Cheikh looy doyee bal tegs bi. bal tegs mooy loolu quoi dama ciy foo dama namm foo. lii ay ñoom Serena Williams ñoo ko war a jox ay Novak Djokovic. gaa yooyu di tennis. non Touba la jógee dañ ciy foo rek xam nga dañ ciy barkeelu quoi. ñoom ma barkeel. barkeelu naa. albarakatu lil mutabarikina ah. waaw bés bi tey. bés bu rëy la wala. non bis bu rëy la si comme ni ko nit ñi gisee mais par rapport ak booy bi fi mu teg bëtam nekkul bis bu rëy ci moom. damay gis ne leen ak suñu waa ji mais da ngeen naan tegul fii bëtam am na fu mu teg waa waaw non ah, boo nekkee si dara da nga ciy bëgg a nekk meer moom nekku fi pour daan naak yeeg daan naak yi dafa war a bokk ci ñett ñi mën ci làmb ji dafa war a bokk foofu xale la am na ginaaw gi am na jàppale am na gëm-gëm bi. préparé na li mu war a préparé fu ñu war a dem dem nañ ko lu mu war a entraîné entraîné nañ ko yàlla rek moo ci des te yàlla moo moom lépp moo yor lépp ñun taalibey Serigne Touba lañ yow xeebu dañuy tàllal loxo suñu borom rek ñaan ko ci barki Serigne Touba mi nga xam ne ñun moom la ñu gëm moom la ñuy noyee tey mu suturaal nu kàttanal nu may ñu ndam. fukk de jeunesse su ko yóbbaale maanaam nga ñëw daloo wala nga jàpp ne yaa mën waaj. non non non non ay ay bandi ay bandi géew na si ginnaawam. affaire combat bi affaire bandi géew la de. ay bandi géew na si ginnaawam ay dinding keebaa nekk si ginnaawam te buñ duggee si géew bi di nga xam ne ay dinding keebaa ñoo nekk si ginnaawam victoire ak defet nag mbiru yàlla la moo ko moom suba da nga koy bàyyi ak boroom suba mais préparé nan am nan yaakaar am nan yaakaar ne yàlla dinañu may ndam ci barke Serigne Saliou miñ gëm. waaw Maguette. looy xalaat waaw di ñaan tey looy xalaat. ndam rek la ñuy xalaat ndam. ndam rek waaw la ñuy xalaat du leneen ndam bëre daa ñibbi ci kàttanu yàlla. mais mbaa fukk de jeunesse su ko yóbbaale ci biir géew maanaam naagu jàpp ne maa ko mën xaaral ma jéem a def samay preuve damay dal ci kawam. Pape Maguette Double Moteur bis du ko dépassé donte xale la mais bis lu mu rëy rëy da koy maîtriser ku xam Double Moteur xam ne du saa saaxee combat am an ko daal pare nañ fépp physiquement mentalement moralement dañu ñaan yàlla mi am ndam mooy xool ko ne mu jox ko ndam yàlla na yàlla suturaal tey may ndam tey ci kaw coince naan combat bu ñu yà bu ñu bëgg bu ñu fonk la wax dëgg yàlla du ma dër tey ma ñëw na ko yàlla may ndam suturaal ko ndax baaxaayam ak oyofa may na ko ndam barke alxuraanu karim aa ndeysaan champion yi noonu doomu rëbës ma noonu staff bi encadrement bi yëpp wër ko accompagnateur yi mi ngi takk ay jaajam fi mu nekk ni nag mbër rey waaj di takk ay téeréem ay ndomba waaw takk ndigg bi ñu ngemb ko fi mu nekk nii dafay mu nag day ngemb noonu di waaj ma nga noonu ak waa rëbës yëpp. voilà maa ngi euh, le grand kii moom damay ñemee wax sama xarit. kii moom damay ñemee wax sama xarit la. waaw c'est un ami yàgg nañ ko tey. waaw waaw waaw jël ko. dagg na léewtoo ba ànd ak dagg na léewtoo bi ànd ak xel maa ngi ci moom ba tey. xel maa ngi ci moom ba tey ndeysaan ndeysaan mi ngi koy coaché mi ngi koy coaché ndeysaan mais mon ami mon frère man suma ma neexee man yow sama xarit nga su ma neexee man sama frère nga ku ma daw yaa xam yaa ma tàggat ah, loolu du tey maa yow saa boo soxla xam nga fi mu may fekk. kañ nga ñibbi si. ñëw naa am naa fi two weeks. Ah, ah. waaw ci lan nga nekk. am na ñaari combat yi ñuy wax bu moo géet combat ak Lac bu moo géet bi man dama bëgg nga indi ci tuuti ay éclairage yu leer parce que wax ji bëri na ci. waaw mais xam nga man moom li ma si wax c'est clair si moo géet laa joge moo géet ba léegi waxuma na ma combat boo daa yàq waxuma ko de dëgg rek moo neex yàlla. ba tey combat bi dafay am. waaw waxu ba tey ne combat bi yàqu. waaw si moom laa jóge bu doon yaaxu kon dina ma ko wax bu doon tëggatu ko kon dina ma ko wax n'est-ce pas signé nañ contrat bi ñu contrat ku ne ñu jox la avance nga téye man ma jël sama avance àndaax moom dem États-Unis entraîné ji combat bi des 15 jours ma ñibbisee bi ma ñibbisee nekk dini ak contact papa yaa dama tàggat maa ngi koy nuyu en passage sama entraîneur sama pap di ko ñaanal wér ak wér leen yàlla def Covid bi dugg. ñu le 22 août la ñu woon a bëre ban jàpp date ba mu dem réaliser ak combat bi CNG le 22 août ñu renvoyé combat bi ne Covid bi dafa dugg ñu renvoyé waat combat bi bu ñu ko renvoyé Covid bi dugg làmb amul woon ñu renvoyé lépp ba tey làmba ji doog a tijji nit ñi nañ tey rek ki joxe xaalisam bëgg a suqali làmb dañ ko jàppale mais buñ ko xarab su yoon nekku si daf ma signé contrat. ma war a bëre dama am droit wax si communiquer si. li nga xam nga ci waaw li ma xam laa si wax man ba léegi waxuñu ma na combat bi dafa yàqu te jël naa avance bu duun kon li ma war mooy entraîner préparer à tout moment man nañ wax nag jàpp nañ dat waaw. léegi daal yaa xaar dat boobu foofu leer na. sa diggante ak Lac Rose lan moo ci ne. sama diggante ak Lac dara nekku si làmb moo ñu boole bëri woon na ma daan ko ñu tëggaat combat combat bi am Covid ñu renvoyé ko. maa ngi entraîné maa ngi préparé. alors tey sarak noo ko yebee. kii tëgg combat bi ba léegi waxuma na combat boobu bàyyi na ko waxuma loolu. dama yow jàpp nga ne combat bi day am. moo tax may entraîné di xaar di préparé waaw. léegi yaa ngi andi tey coach. waaw combat bi lañ nga ci jàng. combat bi di ko ñaanal combat bu waa la. di ko ñaanal ndam ndax coach sama rakk la sama deret la te nit ki sa deret moom nga war a jàppale. waan wàlliwaan sa dëkk moo war a tëgg nga dem wàlliwaan mais. pas ñu ne risque la jël. non ban risque ñiy wax risque xamuñu bu ñu ko xamoon duñ wax risque la jël. ndax dañoo ñëwaat si boor bi. arbitre sifflé na Garo Gare moo ñu wan kanam. Garo Gare moo ñu wan kanam. Siri Diamaguène moo ñu wan ginnaaw. voilà merci beaucoup. attention Siri Diamaguène mbéj na ko. wuy sa man day wuy yaayam talaata e gaaro gaar door na ko dimanche <laughs> ay Sidi Diabagar jël na ko jeex na jeex na gaaro gaar attention lu arbitre di wax quatre appui quatre appui ku def quatre appui ku def quatre appui Sidi Diabagar daan na gaaro gaar doomu Déni Birane Ndao ñoom ñëpp a ñëw ndeysaan Sidi gaaro gaar garaawul garaawul garaawul comme comme yéeguñu sa kaw rek toog sa kaw amul problème <laughs> ndeysaan Siri Diamaguène booy Diamaguène am na ndam gaaro gaar amul benn problème delluwaatal gaar ba rek defarwaat. gaar waaw gaar lu xew combat bi. waaw bu fekkee quatre appuis am na moom Siri Diamaguène moo def quatre appuis wallaahi lancé bu fekkee si quatre appuis am na moom moo ko def. yow defoo quatre appuis. non non defuma quatre appuis. non daanu ma. wallaahi daanu ma. def dara entraîné dem xaarat lu ma yàlla may rek ma jël ah non yambar asalaamaaleykum wa rahmatulah mbër bu mbër bu waanee ngi nii daa bu Texas daa yaa waane combat yu yàgg yooyu noonu. bilaay walaay ndeysaan lu yàgg daal. maa la wax lii bilaay walaay. la sax. kooku ay 2016 ah. 2016 2016 la ñuy commencé dugg ci làmb yaa ma gën a xam. yaa yàgg waane bilaay walaay. <laughs> mais nag mel waane bi da nga a wàññi. Ah, ngi si nag. actuellement ne sax ñu ci yenn am solo actuellement ne te loolu moom bu ñëwee dinañu baax trop. ci victoire la jógee waaw ci victoire laa jógee maa daana kii sang bu Kër Massar waaw waaw daa dafa mel ni kii dafa nekkaat di gën a defaraat carrière am parce que daa warul toog benn année bëriw. bëriw waaw non loolu du yoon wax dëgg yàlla du yoon parce que mais du si ñun ñoo ngi bay suñu waa chaque jour ba temps yi rek ñooy amoon benn grand combat gaa mi nii yàlla may ñu si ndam affaire mbapat ak yooyu xam nga. teewul ñoo ngi dem ci àll bi tamit di ko ñaaxante. maa ngi mbapat waaw maa ngi mbapat moom waaw wàññi nga waane bi. non <laughs> non mu ngi ci ba tey loolu mënut a dañ. daa yaa waane. non loolu mënut a dañ. <laughs> daa yaa waane. non mage loolu mënut a dañ loolu yaa ko fi génnee <laughs> kenn du ko dindi nag. bilaay walaay. non ngi sa ginnaaw yow. mbër bu bëri feeling. waa gis nga te day yokk incha allah nag. nee naa ñu ngi waxaale combat. waaw wax ni moom ah. dina sotti. waaw non incha allah dina sotti. ma wax kan <laughs> waaw am na ñu may naan nag Baara Ndiaye ak Boy Zal Bawol. Baara Ndiaye même bu faas waaw waaw. Baara Ndiaye ba bu faas non combat bu neex. non boobu kay dégg ma njardeem la. ñaar loolu njardeem la la wax kooku kay moom ah, ma. bëgg naa combat bu. non incha allah taxaw. Eh, mais kooku tànk yi dëgërul tànk yi dëgërul. <laughs> tànk yi dëgërul tànk yi dëgërul kooku moom jaaxaluma quoi. Baara. Baara daa nee say tànk dëgërul. nee na say tànk dëgërul. xoolal xoolal Cheikh. Cheikh dañ koy jël. gaa rek jël daa barki Serigne Bamba. noonu moo tax bëree kuy bëree. gaa dañ koy jël noonu la fa demee nag. waaw champion mais yow. devant tout le monde. devant àdduna. devant waa France. devant waa Amérique waa Amérique comprendre ngeen yow mii nekk Amérique. yow mii nekk Amérique kii laay waxal yow xam nga ki may wax moom xam na ki may wax. waa Japon waa Chine waa Portugal waa France kii dama ko ba maa la bàyyi tey mooy suñu dernier interview dootuma la jël interview man. xam nga man goro laa. loolu am na. boo ma bàyyi ma tas sa sëy de xam nga damaa seytaane. sama doo tas goro gi goro gi daa dëgër. Eh, yow dafa nànk foo ma doon nekk keroog. ah da nga ma bëgg a boole ah yow léegi da nga may nag maa bàyyi wala bàyyi woo ma. waaw léegi. ah ko teg par force. waaw léegi ñu wax la ah, moo gën ci yow. yow lan nga bëggoon wax. ah. loo bëggoon wax maa ngi yow ay doomu ndey lañ jàmm rek. Ah. maa ngi yow mburoog soow la. yëngal naan wala yëngal. mburoog soow non cerek soow. cerek soow la ah xam nga cerek wala cerek meew. cerek meew. mburoog soow ko bàyyil ñaar ñooñu. non namoon naa la nag vraiment di la félicité gis naa keroog benn affaire bu rafet boo def interview ñu wax loola rek yéen a ñuy dundal yéen a ñuy aussi may parce que làmb ji bi sooxee taxul ngeen bàyyi yéen a ngi accompagner mbëri yéen a ngeen génne ci kuréel sax loo mi ko gis loolu moo ci am solo tey aussi maa ngi lay jégalu ah. ba ma ñëwee ba léegi gisante wuñ nekk ci nga nekk. la daloon euh, jinax bi mu tasee ak muus noonu bañ naan ko ndax na musul xam parce xat-xat yooyu xat-xat yooyu ma jàpp ba léegi. ak comme wax maa ngi woon ci biir frigo bi léegi génn frigo bi. non kay fi man Zos. <laughs> Zos nee Zos Zos nee na dafa nekkoon ci biir frigo bi. léegi génn na ci frigo bi ay millions boo ko taamee ne nga wax ni toog na yaa ngi neex de. oh oh, oh. million boo ko bàyyee surtout moom dafa misoon ci Idi tey Idi jur nekk président. copain. le futur maire des Parcelles Assainies sos. sos mais dafa waroon campagne. dafa misé woon ci Idrissa gis na ni instant Idda Idda ngi bàyyi politique <laughs> loolu laa réewee ba nga ma nee sos jël naa waaw sama xel ci ñu nekk de. mooy bi muy campagne sos da newoon doon président am confiance waaw <laughs> naan de ba jékki-jékki gis Iddi naan bàyyi naa politique mu de xam naa ne bu ma mere nag grand dégg nga vaar bi la. looloo <laughs> Idy daa ne bàyyi na politique rek muy dellu si làmb ji maa ngi jooy bi non sama misé woon non Idy mais Idy président conseil tos nga yaakaar sama grand bi billaay Idy boo bàyyee politique so voilà moo moo tax mu dellu si làmb ji mu dellu si moo tax per Gaston Gaston ñu ngi koy gërëm Gaston amul Gaston per Gaston yàlla na fi yàgg de wér mais yow yow policiers yi est-ce que bàyyiwuñ la léegi yée policier tey ma gën a gërëm nag maa ngi gërëm waa direction police nationale euh, ak général yaag bi fi nekk ak Ousmane si bi nekkoon ak Omar la une chose directeur bi fi nekkoon ba may bëri Omar Mal tam nekk ambassadeur dama toog jékki rek woo ma ndeysaan mais yow tamit lekk nga xaalisu police bi yëpp déet li ma leen jox ci million da dool man police yi ma doon social am nga combat ah non combat laa ko jëbëree mais bi ñu bi ñëwoon ñu ngi koy do doq alaaji may def avance waaw wulli lañ jox avance ñu ngi déglu fi mu toll nii damaa damaa dama avancé damaa. avancé Wuli waaw taxaw na. taxaw na ni moom moo taxawoon moom Boubacar Niang moo ko taxaw ci lañ liggéey nii. bañ ko signé fële waaw maak américain yi war a ñëw vraiment ci lañ nekk di ci liggéey. di ni date bi daal la ñu amagul ñu ngi yàlla dox date bi ñëw ñu bëri ko si jàmm génn si jàmm parce que sonn naa ci entraînement yi te soxla naa ndam te namm naa géew bi te saboteur bi war naa tooyal. est-ce que bi yëpp amatoo ci amatoo ci mbër. dégg naa ñu ngi formé beneen mbër police Euh, fële waa Batrin ñi ngi jéem a xool benn mbër bu ñuy formé. waaw loolu damay sant yàlla man l' essentiel mooy ñëw naa war naa gars yoon bi sama sañoon tey yeneen champion ñu génn ñëw def lu ma deful sax loolu sama objectif la tey. Ah, man sportif la comme yow mënoo koo bëre. daanoo wuli da laa ba tey jii nii. waaw waaw xam nga sabatit boo gisee ndox la woon sabatit boo gis ndox la woon ba may commencé ak waa police ma ñëw fekk dañu toog lu yàgg amuñ victoire ma ñëw am championnat jël médaille d'or bëree booy ba bool da daan ko tey ba egsi fii kon tey amuluma ci rëgg-rëgg sport objectif bi ci gën am solo mooy wanoon xale yi ne làmb ji baax na mais métier bi te Covid bi wan nañu ko tey ak kaf beeg ree bi maa ngi yaa ngi nii gis nga boo toogee doo xam kan mooy police bi kan mooy civil bi tey loolu moo nekkoon sama objectif di gërëm ñëpp di waa ICO sama doomu ndey ah ICO Farxaan maa koy gërëm ak famille vraiment aw fay ak ñoom Sadia ah Ayas moom drapeau bu yàggul di gërëm aussi sama papa Maître maa ngi lay woowaat di woo Matar ah. da ngeen a bokk ci man bàyyi leen seen ngeen def. jeex na loolu jeex na loolu man. nañ fañ nekkoon te max seere na la pataake bi nga jéeri jox arbitre daw na def na déplacement xoolal di ñuy defee ay déplacement xoolal arbitre yi rek xoolal arbitre di rek arbitre dañoo am ay technique temps yi attention brise mi ngi song ñaari avertissement la am moo tax muy song e seere na waat la bi seere na ko tey nga dee seere na ko tey mu dóor la nga wàcc brise mer moytu mu dóor la nga wàcc de T-Max loolu rek la bëgg naa as nga xam nga ne T-Max dóor mu daan la bëgg xoolal mi ngi seerewaat la pataake wuy sab ma nday mi ngi koy seerewaat wuy sab ma nday seere na ko wuy sab ma nday tey mu gaañ ko ki doomu jàmbur la de bàyyi li ngay def bàyyi li ngay def la pataake dafa dijj sax dana ko dóor Brise mer aj na garde bi ajal say garde da ngaa gàtt Brise T-Max T-Max euh, mi ngi taxaw di ko déglu léegi xam na ne léegi sa Mer moo war a jël ay initiative day aj gardam di ko déglu di ko xool lan lay def mu juumloo ko seere na waat la pataake bi wuy yaay bu ko seere rek sama yaram day daw Seydina bu seere laa pataake bi rek sama yaram day daw dafa mel man la ñuy waaj a dóor <laughs> wuy sàmma dana ko gaañ liñ xale yi di wax wuy sàmma wuy sàmma sànni na droite seere na ko waat wuy sàmma wuy sàmma xale yi ñooy wax loolu wuy sama wuy sama seere na ko waat wuy sama wuy sama ndey <laughs> moom day seere te du dóor <laughs> day seere te bu dóoree si loxo yi lay dal si loxo brise mer jéeri jàngalal kii dóor bu amee làppataake mbër bu amee làppataake day jàng dóor waaye am làppataake di nga seere di dóor si loxo jàmbur doo dóor ci kanam si mâchoire attention wala nga dóor ko fi muy lekkee yu guy gi xoolal seere na waat seere na waat wuy sama wuy sama yi xale yi wuy sama wuy sa <laughs> wuy sama wala moom de xoolal day dóor si ngelaw gi lay dóor eh eh eh si ngelaw gi lay dóor seere na ko waat da nga waroon a kole sa yaram avertissement encore ñetti avertissement ñaari avertissement lay nekk arbitre woo na leen si digg géew bi waaw deuxième avertissement troisième avertissement pour Brise de Mer commencé nañ ko dagg commencé nañ ko dagg dama koy dagg doo ko dagg <laughs> ñu ngi leew doo waat sëy naa xam nga dama koy eh, eh, waaw seereel ñu ngi lew doo waat xeex xeex sëy naa xeex xeex xeex ofal ofal arbitre ofal na léegi Brise Mer mooy jël ay initiative mooy jël ma ngay seere ma ngay seere wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama dóor mu waaj wuy sama dóor mu waaj wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama jël na ko jël na ko rëpp na rëpp na mooy yéen mooy yéen mooy yéen jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na bàyyil sama yaram ngay daw maa ngi mel ni kuy bëre waa ji si air bi rek day seere ba pare di dóor si air bi yow yaa ngi seet rek si nag tey dama mel ni kuy bëre tey sama xattal yi sama mankaana yi la yi nekk fii tey sama ndomba ndigg yi la. Ah, déet déet déet déet leen déet ne leen déet temps bi jeex na repos partez. Brise de Mer mi ngi song mi ngi jël ay man tànk day jooru te max bi moo ma jaaxal tànk droite bi muy sexal te Brise ñemewu ko sex man looloo ma jaaxal ñu ngi leew toowaat ñoom ñaar Brise de Mer jël ay initiative moo am trois avertissement tànk bi commencé na sàcc na tànk ba waaye sàcc ba baaxul sàccee wuub mooy na mooy na sàcc ba mooy na sàcc ba mooy na yomb naa jàpp mais mbaru jéeri mii nii mbaru jéeri bii lëf la de Aseyna mbaru jéeri mii lëf la de attention jël na ko waa baaxul baaxul tee max dafa diis wi baaxul door mu daanu door na ko mu dal wis sama wis sama wis sama sëy na <laughs> wis sama door na ko mu dal wee pep pep pep pep Brise door na te max mbaru jéeri dem na ardo wis sama wis sama wis sama wis sama dem na ardo wee bépp ba ngantaan mi dóor na mbaru jéeri jéeri jéeri jéeri jéeri lii du yoon jéeri lii du yoon arbi sible na seetal li ngay seet bàyyi attention attention à T-Max mbaru jéeri attention brise mer moo jël ay initiative léegi T-Max dóor na ko te max dóor na mu dal te max na mu dal ci loxo yi attention Brise Mer qui avance à petit na ko gauche laay lay la laa eh, sàcc na tànk ba waxoon naa tànk boobu noonu muy bàyyi takk na ko wër na ko ndomba tooj toojooy tooj tooj ni ko eh laay lay la laa belle rotation laay lay la laa belle rotation ah waay te max oh kontaan nañ ci sa bi muy. pep pep pep wee pep pep pep kontaan na lii moom boo koy def kenn du tëj làmb ji kenn du tëj làmb ji wee pep pep pep pep sama wuy sama arbitre bi sifflé waat na ku nekk am nga ñetti avertissement jox nañ léegi mbaru jéeri te max benn avertissement ñu ngi lay toowaat ñoom ñaar ku nekk ñetti avertissement ku nekk am nga ñett Tmax ak euh, Brise de Mer numéro 2 ñu ngi leew toowaat tànk ndeyjoor contre tànk ndeyjoor droite contre droite attention balancement de te Tmax dem na faju ji ba ñëw te Maxime dina demi flexion tànk ba tànk ba tànk ba tànk ba da nga koy sexal da ngay sexal day sexal ngàttaan Brise Mer même na ñu ngi bëri ñoom ñaar ay ndaanaan lañu tey ñëpp kontaan nañu ah, ah, ah door na ko gauche droite droite gauche ay eh, waa yow lii la lii la da ngay daanu da ngay daanu jël na la jël na la xeex këpp na këpp na këpp na wuy sama wuy sama for ko gaaw wuy yaayooy wee pep pep pep pep oh, daan na ko kawote na ko il a kawote ce jeune champion Brise de Mer qui met KO T-Max mbaru jéeri oh jéeri wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama sama waa yow ma ngay njub wee pep pep pep pep pep policier yaa ngi leen di génne dafa kontaan ndeysaan dafa kontaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah waa ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan xoolal ma lii Seydina ndeysaan ndeysaan ndeysaan ay ah, waa yëkkati na ko xoolal ma mbër bi ba xam gaañuwul naa xoolal ma ko ba xam gaañuwul Seydina xoolal kanam gi ay eh, waay daa màndi tàng yi taxawatul astafurlaa tànk yi taxawatul nga door ko ba pare di ko di ko kii mooy yéen nga door ko mu wàcc awaay ah mbaru jéeri daan na waay jéeri bi paas Seydina moo daan muy bébé liiru tey sama mbër daan ah jéeri sa mbër ñu dóor ko mu wàcc wee pep kawote na dafa kawote il ne tient pas debout il ne tient pas debout il a perdu ses réflexes il a perdu ses réflexes il n'en peut plus ndeysaan jóg na émission Quench dafa match nul ak Diène Kairé Double Moteur moo mujjee daan ki nga moom mooy chef Quench di fëgala kon combat revanche ñu ngi demee wet fii la woon arène nationale ñu ngi demee wet Quench moo ñu wan ginnaaw mooy jëlal magam revanche Double Moteur moo daanoon fëgala jàppande dóor dara am bu ñuy dóor dara di am vingt arène nationale waa Rebeuss ak waa Lansar ndeysaan une belle mobilisation des deux lutteurs félicitations aux def ngeen lu rafet dañuy def lii ci jàmm boo leen koy def ci jàmm kenn du tëj làmb ji ñoom ñaar jàppante nañu ku nekk mi ngi déglu sa moroom mbapat mbapat door dóoru yoxosu attention Double Moteur jàpp na Quench Quench jàpp na ko Quench moo ñu wan ginnaaw attention épreuve de force ñoom ñaar ñëpp ay poids lourd lañ attention plaquage Double Moteur réussir lool Double Moteur door na si suuf Double Moteur may ko mu xalaat Quench hyper concentré jël na tànk bi Quench la ko bëgg a yëkkati laa ilaaha illallah mais bépp bépp bépp wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama yu xale yi attention jàppante nañu bëri la ñu gis bëri na ñuy gis ñoom ñaar ay poids lourd lañ ku ne liggéey na ku ne respecté na combat bi attention dóor ci suuf pour am ouverture la Diaw production merci journaliste yëpp remercier nañ la yombal nga ñu liggéey bi jaajëfatee koñ si dóor na ci bopp si nopp la ko dóor nopp baa ngay riir nopp bi day riir attention ah ma Moteur a ngi dóor ñaar Uppercut si door na ku ne ouverture nga bëgg door na ci bopp koŋ na ko daf ko koŋ ma Moteur daf ko koŋ moo ñëwaat ginnaaw léegi waa Rëbës taxaw nañu waa Tëngéej taxaw nañu waa Lansar jóg nañu Ibrahima Mbaye soppe jóg na laay lay la laa booye mooy bëre am na ñuy xëm sëy naa am na ñuy daanu ay rab ay rab la daanu <laughs> ñoom yaa ku ci nekk taatu géej nga dëkk rëbës dafa jege géej Quench lébu la ab lébu la Double Moteur door na trois uppercut fayu na ñett rokos waaw rokos rokos contre rokos si faar yi si faar ku ci amul entraînement say faar day damm karaj ko dooroon Seydina faar yi ñooy duggante la sa frère jàppante ah eh, door na ko ci bopp ah duul ma door a ngi door ñetti ku door fayu ah caxabal caxabal caxabal baaxul kuwen ci loolu mooy lan caxabal yootu caxabal yootu la kuwen ci doon def ndaanaan nag la ngay bëreel attention door ci bopp door ci suuf kuwen ci door na ñaari ku duul ma door mi ngi koy déglu ku naagu daanu. combat bi amul pronostic loolu wane ko parce que jàppante nañu lu yàgg ñu ngi rokosante rokosante wuy sama wuy sama rokosante rokosante wuy sama wuy sama rokosante ku nekk rokos sa morom ay ku waaw waaw balaa balaa ñuy bëre foog ñu raak balaa kenn di daanu foog ñu dóorante ah lapin yaa ngi noonu ay ñombar lapin bu ñuul ak bu weex tey lay door a gis lapin xoolal lapin bi wuy sama nday wuy sama nday wuy sama wuy sama sëy naa jox ma lapin kenn du daan fii attention wéyale na ko eh, Quench wéyale na double moteur double moteur il est sur ses gardes il est sur ses appuis double la fin de Rebeuss corps à corps avec le jeune leader de Lansar et de Rufisque ñoom ñaar ñu ngi ci pegg làmb ji ci pegg géew bi la ñu nekk ñu ngi bëree làng ca saaku ya ca saaku ya ca saaku ya foofu baaxul foofu baaxul ñu ngi si corneeru saaku yi ñu ngi si corneeru géew bi foofu mooy corneer ña nga ca angle ba bule neexee ñu ngi ci làng bi dul ma moo indi ay lappaye njombar gudu nopp tekk na tekk ñoom ñaa dañuy essayer dañuy essayer ay prise ay tekk policiers yëpp jóg nañ tey moom sécurité bu mat sëkk laa fi gis waaw ku fi lëmbe dinañ la dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a ba ku la di la dóor boo rombee si mbedd bi sax dañu lay dóor boo xëyee liggéey dañ lay dóor dañ lay dóor ba dimanche dellu attention Quench ma Moteur tenté na action wala Quench la Quench moo ñu wan ginnaaw Double Moteur moo ñu wan kanam nañ bàyyi ba mu sotti rek tey façon sëriñ bu ne gis naa ko fi am na sëriñ sax yu toog ci kaw tribune Quench la may def nii da ngay yóotu ah, ah ah ah ah ah ah am na ku sànni butéel wuy sama wuy sama wuy sama <laughs> wuy sama arbitre waxul dara bërewaat bërewaat gis naa ay tànk yu takk suuf gis naa ay tànk yu takk suuf Quench sànni na benn téere arbitre nee na leen arrière avertissement pour double moteur moteur bi wàññi nañ si benn pièce benn pièce wadd na kii dafa war a def visite technique bu subaa boo demee visite technique dañ lay dàq parce que benn pièce moo manqué ci oto bi am embrayage bi moo dañ. ndax kon nañ de. ah eh rungum daje lii naan rungum mbëkkante mbëkk sax xaj na fa mbëkk ak koloj koloj koloj jël loxo dugal ci bët eh waaye day jéeri mbërëm daa daanu dañ ko dóor mu daanu ñetti yoon ñetti kawoo la def eh koñ sa ngay dóor koñ sa ngay dóor tey koñ si bi amul suukar xorom la ak poobar ak xorom polle e day moteur bi diis na mais embrayage bi dafa wadd embrayage bee yàqu mi ngi def visite technique face à Quench le lutteur qui est à droite il se nomme Double Moteur Quench est à gauche le jeune de Rufisque ndeysaan une ville historique une ville mythique ndeysaan ñu ngi too Quench jàpp na de Quench am na lu mu bëgg de jàpp na teg ko bopp ci put lii dafay tax euh, Seydina du Moteur du liggéey dara Quench fi mu teg ci bopp bi ci put fi muy lekkee foofu la teg bopp bi <laughs> attention Quench Quench sànq ba lee yaa ngi tànte ay mbir yoo xamante ni xale bi ndaanaan la de Quench siggi na dóor Double Moteur qui résiste face à Quench Quench koor na ko door na uppercut wi sama ndey door na ko ci nopp ak ci put wa pap pap pap pap Double Moteur et Quench mi ngi jéem a forcer Double Moteur mi ngi koy déglu attention Double Moteur daf ko bëggoon wañ tànk ndeyjoor bi la bëggoon wañ ndeysaan ay euh, geste technique yu nice laa fi gis ñu ngi tante mais lu sa waay tante sa morom dindi ko Double Moteur wéeru na ci kawam Double Moteur wéeru na ci kawam voilà wàccaat na door na hypergit da ngay door fii nag ku fi jum da ngay daanu manque de concentration manque de lucidité tu perds ton combat ça c'est sûr attention Quench siggi na di dóor dañuy ñamante ci suuf ku nekk benn loxo arbitre àtte ardo am na ardo ardo ardo ardo ardo ardo duul dem na ardo ay waay moteur bi yàquwaat na sànq am rayage bi moo dañoon léegi la moo yàqu Seydina couvert euh, ndox bi fi muy a ah, radiateur radiateur ba bënn na radiateur bi bënn na laay kon ci yàq na ñaari ñaari pièces ci oto bi radiateur bi bënn na ah embrayage bi bañ na waaw ah, ñu xaar léegi visite technique bi metti na de door jël na deuxième avertissement arbitre arbitre sifflé booy xool téere yi wàññeeku na la mu takkoon lu bëri wàññeeku na sëy naa zumel ma zumel ma ngeem Quench gis nga Quench téere yi mu takk genre buum yi morceau yi fi mu ko takk ci côté droite yi ak côté goos bi moo tax Double Moteur loxo mënul dugg foofu ah Mohamed bien vu attention ñu xeex ñoom ñaar ña ngay xeex Double Moteur def na léegi Ardo ñëwaat na combat bi lu mu gën a yàgg ragal naa mu nekk ci avantage Double Moteur et da doon riposter ak gauche Double Moteur moytul gauche coint moytul gauche coint Double Moteur dóor na benn gauche eh rëpp na daa bëggoon dem daa bëggoon dem deux poids mais boo xoolee Quench moo gën a sàcc njoolaay kaw et puis aussi si côté volume gis naa ne tamit Quench jël na lu bëri. ñu ngi lay doowaat vingt ñaata minutes vingt heures et demi na ñaata minutes dix-sept lañ commencé ba et wax ma laat ñaata la. treize minutes des na deux minutes ñu dem mi-temps attention Double Moteur ak Quench Double Moteur dóor na léegi ndengeñ na Quench Quench ndengeñ na ko gis nga Double Moteur loxoom bi mënul mënul dugg biir ngemb Quench Quench daf ko senture daf ko ceinturé ak ay galaaj attention dóor si suuf ay uppercut mbëkkante mbëkk ñu ngi tegante bopp mel ni ñuy fóonante attention Double Moteur door na ñaari coup door na ñaari coup ci mâchoire 13 minutes de combat Double Moteur door na ñaari coup la ilaha illallah wee pep wee pep pep pep Quench mooy door Quench la Quench say door noonu dañoo xaw a nduroo ñuulaay seen ñuulaay bi Quench rek Double Moteur mënul jàpp ci ngemb li seetlu leen loolu attention xar na ko mais bàyyi na Quench ngay dóor dana ko gaañ awaay ah, dana ko gaañ woo bépp bépp bépp wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama waa Quench xanaa dañ ko yónni ay ah, waay waay waay waay baa ngay xaw a yàqu waay si jàpp na Double Moteur kii résiste mi ngi encaissé ay coup waay mi ngi résisté ay waay waay waay na ko waay Il n'est pas KOD. Il n'est pas KOD. Il n'est pas KOD. Doul Moteur arrière na pour récupérer. na oui eh eh eh oui taa oh oh eh, oh oh il a reçu beaucoup de coups. Il a reçu des coups fatals. Il a reçu des coups énormes. Il a reçu des coups fatals. Il a reçu des coups énormes. Il est sonné. Il est ndeysaan mi ngi ci ardo il a reçu beaucoup de coups il a reçu des coups la forme physique xool leen ngemb loxo bi du mën a dugg loxo duwul mën a du mën a dugg ngemb Quench la waaw lii moom tournoi CEDEAO la lii moom amul jàpp ngemb troisième avertissement pour euh, double moteur lamb ji bu fi yemee Quench la ñuy jox ndam li arbitre sifflé na Double Moteur mbaa yeewuñu ko Double Moteur ren lu bari doxul moteur bi lu bari doxu si oh oh ndeysaan ndeysaan Quench jiital na tànk ndeyjoor Quench mi ngi taxaw di ko xool wala boog Double Moteur mi ngi taxaw di ko xool moment de récupération qu'est-ce qu'il va faire est lan mooy réaction bi bu jàppandee da koy gaañ waaw Mohamed wax na ko waaw jàppante bi da lay gaañ tu reçois des jëlaat na beneen coup il faut mu jël ay initiative ah parce que fi mu nekk ñetti avertissement la am mën na ko perte par point temps bi ñaari minutes su ma jub ah door na ko ah attention uppercut bi. Quench Double Moteur def ko bëggoon sàcc ah waay ma ngay door ay uppercut waaye wuy sama wuy sama wuy sama sama yaram baa ngi daw oh oh oh oh maa du wàcc maa du wàcc eh mais il résistant il est coriace en Double que yeewuñu ko loxo yi de mënul dem loxo yi doxul loxo yi dañ ko freiné. am na ñu ñu arrêté. waaw jox nañ ko benn butéel ne ko diwoo ko mu bañ. ndeysaan ndeysaan. attention jàppante nañu léegi. Quench Double Moteur gis nga Quench day jàpp mais Double Moteur du jàpp loxo yi dara doxul. ah man de wa man tey laa joom loxo yoo xam ne lu ñu freiné comme lu ñu freiné comme ku ñu mënutee. Coins ak bay jàpp di dóor rek des na deuxième mi-temps ñoom bari yaa ngi noonu. bëri nañu vingt minutes ñoom bari yi. ndeysaan xool leen attention tekk na ko. Coins tekk na ko ndeysaan daf ko kal noonu. Oh, dañu mel ni ñu jaaxle mais il est toujours ci suuf tëddal lañ ko ci suuf dañ koy résister. ndeysaan liggéey na entraîneur doole te jàmbaar la ak coup yu mu jël yépp ak coup yi mu jël yëpp njombar yaa ngi ci wetu chaise yi les lapins à côté temps bi jeex na mi daanañu mi daana tojal tëddaat na tëddaat na dañ koy tojal mystiquement waaw dañoo jàpp ne dañ ko jàpp daanu na ñaari yoon jóg nañu ñu ngi koy sang xolal Quench ma nga taxaw ak supporters ma ngay jox confiance ngi wax ak Quench ak benn entraîneur am Max a ngi wax ak moom booy bi comme moo dominé combat bi bu naagoo tuuti rek day bañ mu ñàq ko day bañ mu naagu ma ngay joxewaat ay conseils. xale ñu ngi ci suuf bi ña ngay mystique Double nekk na ci suuf pour ñoom dañ ko jàpp mystiquement maara bi ma xëccoo buum da ngay xëccoo benn morceau ay téere la ñuy xëccoo Quench da ko doon bëgg a jël Double Moteur jël na téere bi deuxième round du combat arbitre sifflé waat na 19 heures et 20 heures 44 minutes 8 heures 44 9 heures yi la ñuy bëriwaat ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Double Moteur ñetti avertissement Quench moom moo ñu wan ginnaaw Double Moteur jéem nañu tojal tojal nañu ci ñeenti xibla yëpp nekk ci géew bi xaw ma dana marché am du marché xaw ma am moteur bi danañ ko cuq mu tàkk walla waaye Double Moteur mi ngi taxaw di xool Quench mais attention au coup fatal parce que wayen ci dóor yi muy dóor maara day daale Double Moteur bu amul woon doole bu liggéeyul woon wàcc na bu yàgg kon ñu ngi ci yoon bi di ñibbi actuellement mais boobu ba mi ngi résisté il a résisté les vingt premières léegi nag benn vingt minutes moo des toujours Quench moo dominé parce que Double Moteur am na ñetti avertissement ndeysaan te boo xoolee combat bi moo gën a diriger Double Moteur Quench Double Moteur dagg na léewtoo bi ñu xool est-ce qu'il va réagir ba xam dina réagir est loxo yi dana doxam du dox est boo ko cukkee mu dàq wala du fay mooy oto yooyu nga xam da ngay mu ne rek nag brrr <laughs> oh te te te ndeysaan sama oto bi sama oto bi da nga koy cukk mu ne bum bum bum bum bum da nag ne bor ma ne ah mbar mbar nag sama oto bi da ngay cukk mu ne bum bum bum bum rek yëg na mbar ma ne mbar men oh attention droite lancé par Quench waaye sànni na benn droite léegi duul ma dër tey bu paree war na dem fële ne di foncer ñu xool ñu xool moteur bi parce que li ma gis daa bëri de. aara dañ ko dàqoon. aara dañ ko dàqoon suñu benn chauffeur ban oto la jël yóbbuwul suñu oto de. déedéet yàlla tere ah ah ah aara ni mu dugalee oto bi moo baaxul kon ma ne sama oto de ma yóbbu visite technique ma daal accéléré mu ne moom moom moom jékki mu ne mbar ma ne ah lii mooy dàq nag mar <laughs> arbitre mi ngi ofal nee leen dóorante leen ba mu neex bëre leen ba mu neex jàppante ay baaraam dammante baaraam awaay lappe yu ñuul ak yu weex waaye fii ci làmb ji ay ñombar yu ñuul ere ñombar weex kii jaabante dans le stade Leewtoo la ñuy def nii Quench moo ñu wan ginnaaw Lansar Double Moteur il est résistant il est coriace ndeysaan lii mooy wane ne xale xale xale mooy bëre doole xale mooy bëre bëre ku amul doole demal toog rokkos yiñ ko rokkos sànq ba tey mu résisté ko moom Double Moteur mu jéngu ñafe ko wane jàmbaar wane gaynde encaissé ba tey muy bëre te gars yi nee nañ dañ ko yeew ku ñu yeew ba tey ngay bëre ñoo ki jàmbaar la ñu ngi leew too tey ñaari ñoom mbar ñoo présent tey ci stade bi tey jaan ñëwul jasit ñëwul jasit est-ce que mës na dugg ci bi arbitre arrêté na benn pour Quench waaw day jël benn passivité arbitre nee na ko bëree woo quatrième avertissement kii xaalisam gi la lañuy dagga dagga dagg dagg dañ koy coppet coppet nañu ko coppet da ko ci pëy ca CNG waaw ñu tëggee ko làmb mercredi baa ñu woo Pape ne ko sa wax ñu bëri ji am ñu mosal la ay eh waay CNG dee leen mosal ñiy wax ñiy wax dañuy wax rek ak ñiy filmer attention eh loxo yaa ngi dox loxo yi dox na Seydina day dëkkala nax <laughs> saa ba tey ba tey waxuma safaan ba tey waxuma goromo kala nax waaw nax <laughs> loxo yi dox na loxo ndeyjoor bi dox na jox nañ ko taal mu accéléré gauche bee des ba xam dina dox eh, dox na dox na nee na baax na léegi jox nañ ko léegi taal loxo yaa ngi jog mi ngi jogal loxo yaa ngi jogal mi ngi jogal loxo yi mi ngi sànni da eh, gala na gauche droite ba Quench Quench tontu na ko loxo yi deuxième mi-temps bi la dox moteur bi tàq na moteur bi tey mi ngi dox def nañ ci huile ak essence ak lan ak ndox radiateur bi fatt nañ ko waaw oto baa ngi daw mi ngi toll Tëngéej romb na Bargny Bargny ngay njëkk a jot avant ngay dem Tëngéej ah yow wala Tëngéej ngay njëkk a jot dem Bargny Tëngéej ngay njëkk a jot. waaw ah, romb nañ Tëngéej bu fekkee Dakar nga jógee Seydina Mama ka wax Coen je Coen je ne suis pas d'accord avec toi tey kon tey ma ak yow dominer mbër dóor ko mu dem ardo nga dóor ko ay dóor yu mett ñëpp naan loxo yi dañ ko yeew ah nga bàyyi dem mi-temps bu arbitre bi jeexee nga am ndam par avertissement est-ce que encadrement bi loolu lañ ko wax il gère son combat Double Moteur am na quatre avertissement bu amaatee beneen avertissement muy cinq Double Moteur la ñuy jox ndam li cinq avertissement tu perds ton combat Quench léegi day résister day xaar day gérer Double Moteur moo war a jël ay initiative moo na sànq mu cokkaas ko ci xeex waaw boo songee dañ lay uppercut kon boog Double Moteur booy songu xoolal li ngay def waaw esprit la ñu ngi léew doowaat arbitre kan mooy jël avertissement si am na deux Double Moteur cinq avertissement et c'est terminé C'est terminé. Victoire de Quench, c'est comme le combat entre Diène Kairé ak Quench par match nul la jeexee Quench si jël na ndam li par avertissement est-ce que gars yi d'accord nañ gars yi Seydina Permax alors yow yaay manager u Quench est tey li mu dominer combat bi première mi-temps ba deuxième bi mu gérer combat bi est-ce que loolu moo ñun ñoo ko téye la boppam sax nag na ko yaa ngi def ay risques di forcer ni ngay am na bu mu ko wéeru bu ko double moteur wéeru woon mën naa toog ak poids double moteur nga bëgg koo fekki di ko forcer te am nga avantage ñu ne ko géréel kii du la forcer ndax mbërëm du la du la forcer kon géréel temps bi bu amee avertissement mën nga ci gagné bu temps bi jeexee yaa am avantage ndax am na trois avertissement ngeen doog a mi temps. kon si conseil la bëree deuxième mi non ndam ndam la rek. ndam ndam la loolu lañ bëre surtout deuxième mi-temps ñoo ko téyeloo boppam ne ko bul jël benn risque parce que gis nañ muy forcé ba bëgg a daan boppam loolu bu ko nangu du yoon gis nañu Quench premier mi-temps mu dominé combat bi ci ay dóor ba xaw a sax wàññi tuuti adversaire am deuxièmement ñu bëri ñu ngi doon wax Double Moteur dañoo yeew loxo yi kon avantage yooyu yëpp est-ce que tey li mu bëree ba deuxième mi-temps mu géré ko gagné ko par avertissement d'accord ay yeew loxo moom du ma ci dugg parce que moi je suis cartésien donc li nga xam ne moom la ñuy gis moo di ne Quench moom moo dominé combat bi euh, moom moo gën a jël initiative à un certain moment sax jël na risque yu nga xam ne mënoon na ci ñàkk combat bi parce que boo xoolee am na ñaari caxabal yu suufee yu nga xam ne def na ko alors que caxabal euh, c'est de l'intelligence en mouvement action la bu nga xam ne da koy déclencher en mouvement sañ a xal waa ji mu soog a daanu mais waa mënul statique nga bëgg ko caxabal def na ko ñaari yoon. réussirul ci biir xeex bu sew bi aussi moom moo dominé euh, double moteur physiquement dem nañu ba sentir ni jeex na tàkk boo xoolee même protège dent bi mi ngi meloon ni ku koy bëgg a yàbbi parce que physiquement il était cuit maintenant au nombre d' avertissement euh, euh, double moteur li mu am ci avertissement bëri na alors ki nga xam ne moom mooy entraîneur Quench ci pause bi da ko yaa dominé yaa jël initiative waa ji am na ay avertissement c'est pa la peine de forcer moment boobu donc mu téye boppam benn instant euh, ñu avertir ko avertir moroomam au nombre d'avertissement mu gagné donc et c'est dommage parce que combat bi waroon na mën a am issue bu gën a neex. ku la xam-xam ne ndaanaan nga ci wàllu làmb booy analyser tey Quench li mu bëre dominé premier mi-temps deuxième mi bi ñu ne ko gérer combat bi. waaw waaw waaw commencement bi li li indi. Quench mi ngi doon def li mu war a def mais tey double moteur lañ xàmmeewul ba pare seen bëre yi li ñu waroon a juboo pour ñu bëre tey ñoom ñaan ñëpp bërewuñ loolu ndax Quench da lay dajale ba nga daj pour mu pour mu takk la dóor ci suuf wala mu bëre yow mais double moteur day naqaree dajale ndax tey dafa indi poids bu bari ak laf kon Quench du ko mën a dajale beneen bi mooy double moteur Quench da lay may nga ñëw mu mbot la te double moteur da daan song mais tey kenn gisu ko mu songi. tey risqué wul loolu quoi tey risqué wul loolu quoi tey double moteur moom moo indiwul dara tey bëriwul xeexul kenn xamul nag lan moo tax quoi tey moom amul benn bëre boo xam ne ni am na sujet quoi. dañ ko waa ah, dañu yeew ah man du ma wax yow ci loolu parce que man moom yeew ak ay doole des fois nga gis nit ni amul doole. fekk am na doole intérieur des fois nga gis nit ñi dañ ko jàpp ci gàllaaj yooyu ay affaire yoo xam ne lu ma maîtriser wul la lu ma ci wax quoi mais li ma gis ci sport bi mooy tey xàmmeewuñu double moteur waaw tey li mu waroon a def moom defu ko quoi tey dafa ñëw indi. mais li staffu Quench euh, ci wax ne na téye boppam gérer combat bi d'accord nga ci. waa des fois gars yi dañ lay bañ a jëlloo yenn risques yi mais nag am na bés yoo xam ne mbër mi moom mooy xam ni tey damaa war a daan jóge fi ndax Quench damaa waaw Quench li muy bëre ci làmb ba léegi champion la mais musul bëre grand combat mi ngi doog a bëre grand combat te tey bis bii nii bis bu mu marqué la ci làmb tax tey tey ñoom ñaar ñëpp dañoo ñëw feesal stade kon bu daanoon ci biir géew victoire nag noo ko amee baax na quoi noo ko amee tamit neex na mais bu daanoon ci biir géew bi doon na baax ci moom doon na gën a neex tamit quoi. gis ngeen loolu la ñu andi woon tey si géewu ko gis ngeen li nga xamante ni moom mooy ni ñu analyser combat bi Quench andi na volume andi na doole macha allah tey daf ko gën a yokk mais tamit double moteur bàyyiwul boppam il a très bien travaillé tey gis ngeen ci coup yi mu jël coup yi nga xam ne jël na ko. ku amul woon entraînement dëggantaan ku amul woon physique da ngay wàcc ku lucide woon tamit dangay ngay wàcc mais gis nañ ne il est lucide na parce que xelam mi ngi ci combat bi mi ngi def xelam ci combat bi et puis na parce que am na doole ji mais Quench xëy na victoire bi nii li la sa staff wax noonu la waroon demee jël nga ay risque mais ba fin bi ñu ne la bul jëlati benn risque parce que ci côté avertissement yow mën nga cee am ndam te yaa jël ay initiative bul juum ba daanu kon loolu conseil yu staff la moo tax mu bëree noonu mais gis ngeen Malick Thiandoum euh, analyser na ko ak ki moom mooy père Max Mbargane moom mi nga xam ne moom mooy manager kon kon jaa ngeen jëf mi ngi noonu sey naa kenn du yow tey làmb ju neex la làmb ju neex macha allah et félicitations Baba Diaw Diaw production félicitations aux supporters remplir ngeen stade bi fair play ngeen jàmm ak salaam nii buñ koy def kenn du tëj suñu làmb jaa ngeen jëf mucc ak mucc la.